juróom benn fan ci bilépp weer màggalu Touba 2022 njiitu Pastef bi di Ousmane Sonko ak njege jaaleem jot nañ dem ci àjjuma ji foofee ca Touba ngir daal di amal ab ziar jëmale ko ci xalif général bu murit bi di Serigne Mountakha Mbacké joxewaale nag seen addiye ci bilépp màggal mën mi sonal na askanu caaroy gaar ndoxu taw bi jot na nagu li ëpp ci ay kër foofee ca caaroy gaar ba sax mairie bu bi lépp commune moo daal di ut ay camion citerne ak i pompe ngir daal di évacuer yi lépp ndox askanu caaroy gar nag ñoom ñu ngi taxaw teem di laajte plan Orsec lan la mën ci mën bi ak lan la leen defal ñoom nag ñu ngi nakarlu camp militaire bu caaroy daal di tëj ay yoon ba tax na sax ndawu caaroy gar yi lee amatuñ sax terrain bu ñuy fubalee ndax terrain bi ñu doon fubalee dafa bokk ci bi lépp camp wu ñoom nag ñu ngi nakarlu itam tamit tëj boobu ndax ne jàpp nañ ni tëj boobu noonu am na wàll sax nag ci li nga xam ne moo la ndox taw mi fa taa professeur Cheikh Diagne ak Abdou Karim Gueye xurum xàkk la waa division investigation criminelle bu Dakaru xëy daal di defeere gannaaw ab enquête bu waa dikk amaloon ñoom nag li ñu leen di toppee moo di fësal ay information yu nga xam ne dëggwul ay attente yoo xamante ni dafay indi fii ci réewub Sénégal li ni mel nag mi ngi xo mi ngi xewee foofee ca Sodida ginnaaw ba kii di Bamba Ndiongue duggee ci ab kër daal di fa jël sax ay or yu baree bari ñaari téléphone laata muy dal di jël caabi oto bi lépp borom kër daal di daw ak moom bu réewub Sénégal dinañ ko ndéga ni tey jii foofee ca Touba ngir ab ziyaar bu jëm ci màggal gi Maam Ibra Kane tey nag moo xëy fësal ci ab journal gannaaw ba njiitu réew mu Sénégal organisé ab fête ngir daal di recevoir li nga xam ni moo di trophée coupe du monde bu Qatar bi ñu dëgmal moom nag Mamadou Ibra Kane bind na ab journal di xamal njiitu réew mi jafe-jafe yi Sénégal yi di dund fi mu toll tembe muy ñàkk prix yu ndaw yi tey dund ki jafe-jafe yi ci wàllum faju mi ci wàllu fay luyaas Mamadou Ibra Kane nag mi ngi xamal ni askanu Sénégal ñu ngi nekk di dund li nga xam ne moo gën a metti depuis ba nga xam ne indépendance bu Sénégal am na ba tey dëkk bi métti na xaalis amul dund gi tamit cher na laata nag ki nga xam ni moo di Awa Seck xëy na si journal bi yàq musiba ki nga xam ni moo di Cheikh Yérim Seck ginnaaw ba mu takkee journaliste bi di Astou Diom moom nag nee na violeur bu toll ni Cheikh Yérim Seck heure bi waroon na ko fekk ci kaso bi laata mi nekk fii di tal li nga xam ni moo di ay takk ki teg di ki tey dinañ ko ndar keppe ak magistrat bi di Bassirou Diagne gannaaw nag moom ba mu réeree woon ci géej gi liggéey moom nag Basirou Diagne jot nañoo gis li nga xam ne moo di ab néewam xibaar yi nag fësal na ni dinañ ko daal di jébbal ay mbokkam ci lu yàggul dara. internet yu SENactu TV tey nag li leen indi loon ci li gën a fës ci xibaar yi di leen wax rek dig daje ëllëg waaye laataa loolu woy leen di abonné te bu leen di fàtte di bës lii di cloche bi pour di mën a am suñu ay vidéo à la prochaine ci yeneen xibaar fii seen chaîne YouTube seen TV